sëriñ Fallu maamam sëriif la sëriifun bun sëriifun sëriifun bun sëriifun sëriifun tuuma jubluwu la sëriñ Fallu du xotti saatir du tas yaakaar du daw ku ko laaj ko laaj mu may la nga gi jël Seex Fallu xanniyu la muxtaaru maa la koy yow seexuna Fallu yaa moom yow mi wàcc la lawlaa ka sëriñ Fallilo xeewal yi walwale kon bu walwale te na ngeen way seexuna Fudala fadlun asimun sariifun faarisun fadilun Mbàkke ngu soobe la kii mooy njiit mooy wasila lër dem na xewal yi baawante dootul jeex abadan lër dem na xewal yi baawaan dootul jeex abadan lër dem na xewal yi baawante dootul jeex abadan ku sopp Sëriñ Fallilu ku sopp Sëriñ Fallilu ku ku sopp Seex Fallilu xewal walla lër dem du ku soppu Seex Fallu xéewal war la lool da ku soppu Sëriñ Falliloo xéewal war la lool da mat nga imaam ca Makka ak Madina ku soppu Sëriñ Mbakke Madina bàyyi Sëriñ Seex Bombali yaa jiite waa Bombali ak Madina ku soppu Sëriñ Mbakke Madina bàyyi Sëriñ Seex Bombali mat nga imaam ca Makka ak Madina yaay jiite waa Bombali ak dama ni ku bëgg a tàggoog ñàkk ngir jëmmi sëñ Mbàkke Madina nga ñëw fii jox ko addi sëñ Mbàkke Madina ku ko jox bu soobee sëñ Mbàkke Madina nga tàggoog ñàkk barkab sëñ Mbàkke Madina addi sëñ Mbàkke Madina su ngeen ko joxul du àggale bilaahi waaw bu ngeen gisee li tax ma wax ko sëñ Mbàkke Madina dafa julli mag ñi doon ànd ak moom tàkkusaan ba pare mun leen ndax xam ngeen li si ak ñàkk mag ñi ko déedéet mbàkke ñu li si ak ñàkk mun leen sama borom dama xamal li ak ñàkk ba dox naa ak ñàkk sama diggante ak samay taalibe kon maa ngi ñaan si doole sëñ Mbàkke na képp ku ko jox addi rek dootoo ko ñàkk barkab sëñ Mbàkke Madina jërë ngeen jëf sëñ Sidi yàlla nga yàlla nga yokk si barkab xasida yi barkab sëñ Mbàkke Madina jërëjëf mat nga imaam ca Makka ak Madina yaay jiite waa waa Bombali ak Madina Cheikh Moustapha yaa neex a àndal Seex Mustafa yaa neex a àndal nga xel Seex Mustafa Mbàkke Seex Mustafa Seex Mustafa yaa neex a nga xel wa man nga ru yaagulaan jebal sa Cheikh Moustapha yaa neex a àndal dal nga xel wa man nga lu yaaguloon jébal sa baay Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha yaa neex a dal nga xel ku sopp borom daarul xuddoos Cheikh Moustapha yaa neex a dal nga xel wo man nguru yaa guloon jebal sa baay mat nganaar wo mat wolof kenn réeratul yaay tiitaru baadoole ñi sant njaay Cheikh Moustapha wo mat nganaar wo mat wolof kenn réeratul yaay tiitaru baadoole ñi bi sant njaay fal Moustapha amnul Moustapha amnul Moustapha yowmal xiyaamati boole leen ma joseene waay Cheikh Moustapha sa waay du ñee waay keneen sa waay du xàcc jëm feneen deesul la gëm di gëm keneen sa diine doy na xarnu bi Cheikh Moustapha sa waay du ñeewaayi keneen sa waay du xàcc jëm feneen deesul la gëm di gëm leneen sa diine doy na xarnu bi Cheikh Moustapha yaa nuy teral yaa nuy yërëm du ñu may dërëm yaa ni defal yaa nuy defal yaa jënn waay yaa di donoom Cheikh Mbacke Balla Aïssa sigiru soo sa daaru mbaa ngay jëy sa ma jooy alxuraan sëriñ Mbàkke Madina moo bu la dee di jàng ma jooy weeru góor sëriñ Basiiru moo bu la dee di di teeru ma jooy weeru góor sëriñ Basiiru borom daarul minan moo bu la dee di di teeru ma jooy weeru góor sëriñ Basiiru moo bu la dee di di teeru ma jooy na weeru koor sëriñ Basiiru moo ku la deeti gunga ak di teeru habli safinatan bi kullil janna min daaratil minna ni yaasal minna waqdi hawaa'ija lasina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu wasalliyan wasalliman ala nabi waqdi bi haajata kulli muslimi barke borom Tuubaa yàlla na ñëpp am jàmm xéwal ñëpp am jàmm xéwal